El Malick Ndiaye <laughs> gars yi kontaan nañ ci yow de bu la benn chauffeur meree day soixante cinq passagers kontaan nañ ci yow maanaam soixante cinq personnes yu voyagé xam nga bii soixante cinq lay jël chauffeur bi mooy dawal ak apprenti li ñu buggoon bu sotti woon dañ leen di bàyyi ak askan bi ñu exploité leen nga ñëw jël décision boo xam ne dana woyofal mbir yi loolu moom gars yi kontaan nañ ci même ñi nga xam ne seen xol sedd ci mënuñu koo kaas parce que amuñu fuñ jaar <laughs> am na loo xam ne boo ko mënul rafet da nga ciy noppi li lu mel noonu lu mel noonu nga jëfee tey chauffeur yi nag maanaam yokkoon tuuti daal li bañoon leen dal moo gënoon ñoom it ndax ñoom ay borom kër lañ ñoom it dañoo war di liggéey ci événement yu mel ni war a am dara waaye xam nga foo war a fay cinq mille itam yow boo ñibbi nga def six mille wala wala 6000 sax nga yokk ci 1000 francs tuuti mën na la jëndal carburant booy départ waaye nag fu nit gi war a fayee 5000 nga def ko 15000 francs pour événement loolu day xaw a ci ñi ñi tukki quoi. nii mu neexee nag ki ñi doon voyager noonu la méttee ci yenn ci chauffeur yi wax dëgg parce que ñoom it ñu waroon yëpp ci la ñu waroon amee dara yóbbu kër ga. waaye li ci ëpp nag yi ñoom la ndax waroon nga leen ci njëkk ak teraanga mooy nañ def leen transport bi. defuñu ko itam du dëgg yàlla dañ leen fi teg ngir ay solution jub jubal bu lay jàllee na ngeen dajale chauffeur yi ngeen waxtaan pour événement yi ñëwaat ci kanam ñu mën cee déggoo kenn bañ cee gaañoo suñu bokk Sénégal nag. salaam gars ziar naa leen gars yi damay magnifier bu baax a baax a baax liggéey bi El Malick Ndiaye def instant bi El Malick Ndiaye li mu def mérité retourner ay cœur gars yi tey samedi 15 juin bii nii Sénégal yu bëree bëree bëri dañoo xëy ni dañuy dem village dem tabaski ji feesa boo boo maraîcher. am ay sénégalais yu fa ñëw ngir am oto surtout Ziguinchor Tamba Kédougou yooyu ñu ne leen ay Dakar Ziguinchor ay vingt mille francs mooy paas bi paas yu bëree bëree bëri ñu yokko ko ñaay Malick daal di leen wax ne nañ wàññi paas dem depuis dem mi ngi koy wax borom oto yi daal ne ñoom duñ wàññi paas yi si lañ xëy tey population bi daal ñëw ngir bëgg dem borom oto yi daal di fay seen oto ne duñ dem am na si plein droit ne liggéeyatuñ comme mënuñoo fayeeku vingt mille dañuy toog téye seen oto El Malick Ndiaye si la déplacé wu fee sa boobu maraîcher vite fait muy waa joo xamante toujours mu sur le terrain ba mu fa demee wax ak ñoom gars yi nanguwuñ respecté li ñu leen wax nanguwuñ wàññi paas yi El Malick Ndiaye daal di envoyé fee sa boobu maraîcher ay bus Dakar dem dikk yu bëree bëree bëri population ba ma ngay kontaan gis nga vidéo yi nii gars yi di jël bus yi di dem seen dëkk yi. voilà waa Zik ñu ngi nii kontaan continué dem dem direct. voilà léegi. ni ñu koy waxatee banc yi nekk si digg bi Versailles amul dara da toog euh, toog bu neex am clim am lépp si Dakar dem dëkk yi yàlla na Sénégal dem dëkk yi gën a yokk si Sénégal. gis nga Sénégal nii la il va ñu teg ay mesures yu saf-saf si commerçant yi tey gis ngeen ren lañ am lu musul am pomme terre ak soble événement ex si yokkul. ndax liggéey bi mucc ay bi nga xamante ne tamit monsieur Mabouba Diagne mi ngi koy liggéey gars yi Sénégal dina neex. salaamaaleykum gars yi gars yi lii neex na de ñaata at lañ ko dund ma nar dem julli Casamance nar a fay 9000 francs ñu fayloo ma 25000 francs gars yi ñaata at lañ ko dund ci jamonoy Macky Sall. Macky Sall amul benn responsabilité bu nga xam ne war na ko mën a jël pour mu régler lii waa xoolal Bassirou Diomaye Faye son excellence la mu def. xoolal lu mu def dëmb dëmb rek ñaata bis lañuy ñuy yóbbu boo marché pour ñu ñi mën a dem si prix bu abordable delloo prix fu mu nekkoon léegi lii képp ku ne nguur gi nekkul di liggéey si mois yi mu fi jot a toog daa nekk yow amoo xel daa nekk yow amoo gis-gis daa nekk yow day déglu daa nekk yow day xool journal daa nekk yow amoo benn information ci dëkk bi wër na yàlla gars yi nañu ne alhamdulilah rabil alamin te sant Ousmane Sonko ndax ñun Sénégal tey lepp luñ nek di am Ousmane Sonko moñ ko jox gannaaw yalla ndax Ousmane Sonko il a tout fait pour nous kon gaay yi rabbi alamin et merci Ousmane Sonko. waaw ah, patriote sama gaay heure bi daal lu mu leen di fatali bi heure bi daal la ñu naan bu ko julli ji pro ñu yobbu ko bu leen julli ji pro dem bu leen julli ji ay xaar Dakar wéet bu Dakar wéet poro ñu yobbu pro waaw wala boo leen julee rek ngeen teguwaat ci yoon yi barki Serigne Bamba heure bi daal de loolu lañ doon dégg heure bii ren na ña nga ca pale ba jiiri ko di dirisee dégg naa El Malick Ndiaye moo may day bis yi dul jeex ca gare routière bii nga xam ne mooy bari mari ak yeneen dëkk yi barki borom Touba daal ma yàlla ay ji boodu mbuur yàlla ay ji boodu mbuur waaw barki borom daal da lay bàyyi nga fóot ba weer ba jàpp ni woo na mu tooyaat sa tawaat ba mu tooy xepp heure bii daaw nag fit waa ngi rëpp rëpp bu leen julli ji bu leen génn dëkk bi na ñu rese ndax ba wala julli jéem dañuy jàpp pro dañ koy yóbbu ndax heure bi daaw pro nga ci barricade ba bu leen ko fàtte heure bi daaw ma nga ci barricade bi ñuy tabak see fitna ñuy tabak see barki Serigne Bamba mu jékki-jékki génn rek libéré ñu ni dem leen julli ji jàmm rek am barki Serigne Bamba moo ne moo am fit de te ko barki Seexul Xadim waaye nag sama gaay amaguma mbeere maa ci bëriwul dara li waaye xar waaw ah, maa ngi ci bërëb bi nag ah madagul de xar mi madagul de. wallaahi waaw ah, madagul de gis ngeen maa ngi nii ci bërëb bi. waaw waaw. nawet eh, bi daaw laay fàttaliku rek. ak Serigne Diop almaari la ñu lay sant di la gërëm sa liggéey rafet na. jaajëf jaajëf. salaam sama gaay salaam sama gaay ah mais neexu ba neexu ñii ay ngand lañ quoi barki alxuraan karim non Diomaye Sonko mu ne nii ay ngand lañ fa lu musul am Sénégal moo am instant bi nii actuellement nii nii nii nii nii si Tabaski non chauffeur yi bu ñu mer bu ñu nee gars yi dañuy yàq transport bi gars yi yàq ñu transport bi d' abord yéen yéen a njëkk a yàq seen transport ndax boo leen bëggee naan. ah ay Saint-Louis ngeen di wax ay dix mille douze mille treize mille ah Casamance fii nga xam ne nii sept mille six mille lañ fa daan demee ngeen wax ay trente mille léegi nguur bi yëg nañ ko Diomaye Sonko rek ñoom nga xam ne sotti si def rek la ñuy def ñoom ñoom ñu ñëw envoyé eh, ah, Dakar dem dikkee nga xam ne da ngay toog ah fii ba Casamance clim la ëpp ngay seetaan seetaan télé si si si neuf mille francs non yow mën a def faal non non li mosu fee am ay waay waay gàcce gaalaama Sonko Sonko gàcce gaalaama waay yow ak Diomaye ah waxeert kontaan nañ de. doomu ndey loo patriote. waaw mais gis nga Sonko gis nga fu politique. yombal na affaire yëpp. waaw te lii mosuñu ko am. tey boo doon dem tey voyage tey. maximum Casamance. Naby Vision te loolu day métti te aller retour aller retour day day day ñëw. waaw Sonko daal. ak yeneen fere yi am na fere yu ñu fa te Sonko mu wàññi na lépp ba pare. saa yi dafa wàcc sur le waaw ma tëj la wàññi rek na gars yi dem. waaw si jàmm ñu wis ñëwaat si jàmm. waaw daw ndànk. Touba Touba ak Jomaay. waaw tempo tempo dem rek. Touba 4000 Touba 4000. loolu la ko yóbbu clip bi waaw Touba def. waaw 10 000 xoolal lool rek soo ko ñëw na leen hey ba ñu xool ñu leen 4000. cub 4000 te xoolal amul coowul amul demoon ma ñëw. moo waay gendarme yaa sécurité dëkk bi. nga ma amul sàcc te xar yi Jomaay nee na xar yi day wàññeekoo. xar yi day wàññeeku. yéeme iya, na de ñu doon wax du bëri xar yaa ngi ni bëri macha allah. Eh. waaw génn leen na ngeen jënd. Eh. tabaski jàmm. ñu eh. fekkee ko jàmm tànk. yaa ya, ma gën a Sonko Diomaye wala loolu. waaye gars yi yéen ya, a ya. koy gis ah. lépp lu fi yàqu mag ñu mel nii ñoo ko yàq ne heure bu ñuy wax seen njëriñu bopp kese intérêt personnel rek la ñuy waxee. mais duñu wax pour intérêt général. El Malick Ndiaye dèjà jiital na waxtaan ak yéen ngeen jox ko seen accord que ne bi du ngeen koy jokk. démb ak tey ngeen def lu leen neex ku war a fayeeku 5000 ngeen fayeeku 10000 ku war a fayeeku 9000 ngeen fayeeku 20000 francs seen ndey lan la bu ngeen bu ngeen yebee retour bi vide ngeen di dikkee mais yéen yéen a naa fekk bu doon gasoilu retour donc moo tax ngeen yokk seen yokk du passé 1000 francs wala téeméer parce que bis bu war a def 60 personnes bu ngeen yokkee 1000 francs 1000 francs 60000 la bu ngeen yokkee 500 500 30000 la benn retour mënu leen cee lakk 30000 francs yéen a ngi dégg mesures yi El Malick jël. Sénégalais yi sax dañuy ñaan mu gën koo taral jëmale ko ci parce que lii bu doon màggal Touba du jàll. Naby Vision du mën a nekk. kon donc dañoo war a jël yeneen mesures yu taratar teg ko ci seen kaw yéen transporteurs yi parce que mënu leen fee nekk di dund ci ci deretu Sénégalais yi chaque événement ngeen di profité mel ni ay dëmm mais yéen yéen ñi nekk di kaas nii tey. tey par exemple ñi doon yokk paas yi di ko augmenter ba ay vingt mille francs ay mille francs yéen a ngi ci doon teg seen bët lan moo tax génnu leen ngeen naqarlu ko tey El Malick def lii ngeen commencé génne naan ay lii nangam nangam dana jur yenn problème lay jur El Malick askan wi ñoo ko fi teg yaa ngi dégg ci soxla askan wi lay dox di neex askan wi lay def mais du seetlu leen neex yéen. Je félicité El Malik Ndiaye ci décision bi mu jël temp sénégalais sonnon nañu ci chauffeur Magal yok korite yok Gamu yok tabaski ñu prix li ci gëna metti dañuy prix triplé ko la bagage en plus da nga ñun la sa passe nek 5000 ñun la 15000 après la la sa bagage ak manque de respect total respecté le sénégalais décision bi ñu jël da nga xam ne ñii da nga xam ne gouvernement bi dañuy liggéey nelawuñu parce que c'est pas duñ jékki-jékkiwuñ rek jékki-jékkiwuñ rek si yónnee cent buissons dañ ko préparer parce que xam nañ ñi fuñ jëm jékki-jékkiwuñ rek mobiliser liñ mobiliser ci armée bi chauffeur armée bi di ko daw di dawal bus yi ñu jël policier ak armée bi teg leen ci yoon bi ñuy arrêté oto yi di laaj nit ñi di laaj nit ñi ñaata ngeen paas lii lu ñu préparé la lu ñu liggéey la toog di xaar chauffeur te lii lu war a continuer la parce que sénégalais mënuñu di tout le temps ñuy dund lu demee nii il faut aussi sénégalais tàmm di bañ c'est-à-dire il faut sénégalais tàmm di bañ maanaam bu dara amee bu dara amee ñu taxaw ñu ni paas lii la ñu lànk ni duñ ko paas ñu déggoo ko mais problème bi mooy boo ko bañee yow ab sénégalais mooy ñëw jéggi la jàdd dem fay fay li gars wax. il faut ñu tàmm di bañ prix yi ñu wàññi il faut sénégalais bu ñu nee prix yi lii la ba taxaw ni lii la ba dégg ba ne date bii lañ koy commencé. ñu bu ñu demee ci boutique yi sénégalais yi taxaw jël décision man sax loolu wóolu na ma ne ñoo xam te ne ñu demee ci boutique ñu bañ leen jaayee loolu foofu kenn du fa jënd il faut sénégalais yi taxaw il faut ñuy pare te bàyyi bu ki bañee bu ki né du def li am keneen ko jaar suuf def def def lale il faut affaire patriotisme bobu non il faut ñuy nek ñun il faut ñuy déggo boo maraîcher bi ñu fa démon ñep bu taxaw ñu yok paas ñu lakk ne duñ ko fay taxaw population bi ñoo ëpp chauffeur sa fa nekk il faut ñuy bañ donc vraiment ma ngi félicité ministre ci loolu ñuy def gis nga bisu armée bi sax dañ ko ci waron bolé armée bi amna ay bus yo xam te garé pour tester sax seen daw dañ ko waroon génne yëpp teg ko ci yoon bi gars yi aw yoonu Saint-Louis képp kuy wàcc ci yoon bi nga wàcc dañ ko cee waroon a boole transporter sénégalais bu boobaa chauffeur si la prochaine fois dinañ xam li ñuy def en plus ministre du commerce prix yi wàññi nañ ko mais jaxaguñu date kañ la wàññi bi di commencé mais am na prix yoo xam te ne déjà mi ngi fi nekk am na commerçant yoo xam ne ñi ngi ëppal di yokk ci soble si ak pomme de terre bi am na commerçant yoo xam ne ñi ngi ëppal parce que def naa test bi démb daawut mi ngi jaayee sobleem 6 000 am na ñoo xam te ne ñu ngi koy jaayee fii à Mbao à 7000 francs jënd naa ko mais démb wàcc naa Liberté 5 terminus Liberté 5 dugg ci grossiste nekk foofu laaj leen soble 8500 lañ ma wax. Karim Xurum Xaax mi ngi jaayee 7000 mais loolu ministre bi moom tamit waroon na wàcc ci terrain bi xool ci 2 jours 3 jours yi tabaski bi xool prix yi naka la ko gars yi jaayee grossiste yi naka lañ koy jaayee ministre du commerce waroon na wàcc ci terrain bi dem xooli ba xam prix yi ba xam gars ñu ngi koy jaayee normalement. sax yónni ay ay ay ay. ay nit ñoo xam te ne dañ civilu dem laajte prix waroon na def loolu sur le terrain pour gën a dimbali Sénégal parce gars yi ñu ngi abusé di yokk di jaay Sénégal yi di leen sonal loolu lu am la donc ministre di commerce aussi waroon nañ ko gis ci terrain mu def nii El Malick def comme ni ma Mabouba Diagne di def ma buuba boobu ak léegi mi ngi ci dara li xar dafa tuur ci dëkk bi tey lu tey la xar yi di gën a yomb dafa tuuru ci dëkk bi tamit gis ngeen gis ngeen euh, journaliste yi bu leen gisee waxuñ ci wax xar mi xar yi bu xar manqué woon ñu coow bu xar seeroon ñu coow ko mais waxu xar bi waxatuñ ci parce que xar dafa bëri ci dëkk bi lu nit am lu waay am am xar loolu ñëpp gis nañ ci seen bët ñun ñoom nag buñ ko waxul ñun dinañ ko wax ministre ma buuba mi ngi wàcc ci bi mi ngi dem ci daral yëpp ñëpp gis nañ ko El Mali booba ak léegi mi dem boo marché mi ngi ci commerce mi ngi liggéey ministre du commerce nag moo war a wàcc moom it gis prix yi ba xam na gars change changé pomme de bi gars ñu ngi ko yokk soble bi gars yi ñu ngi fenn donc ministre du moom waroon na wàcc ci terrain xool liggéey bi xool gars ba xam prix yi prix yi ñu wàññi moom commencé gul mais déjà prix yi fi jot a nekk ba xam na commerçant yi respecté nañ ko wala respecté wuñ ko